na la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 nee na léeg-léeg dama koy tooñ naan ko yow ni sa xelum maam ni danga koo jël muy Cheikh Mamadou Basir ndax nee na sëñ Basiru ñëpp a xamoon ni ku yàlla mayoon la ci am xel mu rafet ak ak defar am kilifa goo ma si waxtaanal ne ma sëñ am xelam daa xóot waaye nag daa jëm ci rafet amul la xel mu ñaaw nee kilifa gu mag a ma ko wax kon ñu ngi sant suñu rakk ju baax ji di Cheikh Mamadou Muntaxa mi nga xam ni Cheikh Mouhamadul Mourtada moo ko tuddee Serigne Muntaxa Basiru nee na loolu doy na sëkk sëñ bi ab cër doy na sëkk ab cër ci seen Muntaxa doom yi sëñ Tuubaa tuddee la doom nee na moo tax sëriñ bi damay faral di wax ni nit ñi lu ñu miin rek wala lépp lu ne seen kanam du ñu xam nañ ko war a jàppee waaye sëñ Muntaxa ku ko xam xam fa ko waa kër sëñ Tuubaa yi tegoon nee na te booba sëñ Moussa Bassirou ngi fi nee na mu ne ci ronam waaye mu am positif lool am yitte ju kawe dëddu àdduna lool nee na ba nii mu mel rek. nee na bu yàggul rek bi mu fi génnee wax loo xam ne ëpp na ñaar fukki at nee na muy wax joo xam ne ëpp na sax ni fanweeri at mënoo ko xam ne ak li mu wax démb muy jëmm joo xam ne itam bërki démb nee wax naa ko ko ndax ku ko xam dëgg-dëgg te xam ni nituk yàlla war ngaa góorgóorlu ci moom nee na ndax sëriñ bi la lu ko àgg ci boroomam la lu ko dara yitteelul ci àddina lu ko soxlawul dara nee na keroog damaa yéemu bërki démb ba ma fa demee ndax damaa jóge fii sonn lool nee na te coono yi ma daj rek nee na yéemu yéemu daje ko ëpp nee na ma dem fa gis ko ci guddi gi nee nee na ma dem fa dix heures ci guddi fekk moom moo ma woowoon ma dem fekk ko muy jàngi xasida ne nga xam ne daa dagg jukki bi ne wax ak man ne ba noppi ba nu waxee ba jeexal nee na mu ne ma dara du sama yitte lu mooy liggéeyal sëñ Tuubaa mu ne ko bakkan bi sax soxloo ma ci dara lu mooy liggéeyal sëñ Tuubaa bu fi nekkee daal ma liggéeyal la sëñ Tuubaa daan ne ma yow nag ne sa jëmm ji nag na nga xam ni pàgg bu téefu sëñ tubaa nga nee na kon lépp lu may def rek lu lay dëgëral la lay doon lu lay sàmm lay doon nee na te loolu xam naa ko dama koy dënd ak moom nee na muy ci lu yàgg nee na kon yàlla na nu yàlla dimbali ba nu làkk ngërëmam loolu rek mooy li am solo nee na di nuyu baax Serigne Mamadou Basir mii nee na moom it Mbàkke ku baax la maa ngi koy seereel sëñ Fallou léegi nee na nit ku baax la nee na ku am yitte laa këpp Pastef nee na nag di sëtu Cheikh Modou Lamine Baara nee na di nuyu sëñ Abo mii di sama jarbaat di di sama doom di ko sant ci ay taxawaayam nee na ci li muy gindi nit ñi ci yoon wi ak ci mbirum ma sëñ Tuubaa di nuyu bu baax di sëñ Abdou Khadir moom it nee na Mbàkke di sama sët te te yàlla def na maa ko boole woon ak soxna si ngir mu jàppale ko ci liggéey bi nee na kon maa ngi sant bu baax a baax di nuyu Serigne Cheikh Diop moom itam di ko sant bu baax. ci ci yitteem ak ci pastéefam ak ni mu taxawoo soxna si ndax dëgg la sëriñ bee sëriñam waaye nag ko am taxawaay la ci moom mu yéene na ko lépp ni jàppale ko lool ci biir ak ci biti ne féete na ko foo xam ni fépp féete na ko foo xam ni ni fi doom di féete woo àpp du koy juram du fi taalibe di féete ab sëriñam nee na it yéene na ko ndam lool sëriñ bi nee na kon sant ñëpp nee na ndax limoon nañu tur tur yëpp di feddaliwaat ak cant rek ak ngërëm nee na xam naa ni Serigne Ousmane mii yàkkamti na ndax liggéey bi koy xaar dafa bari moom it ñuy yeesal sunu ko cant ci moom. waxtu bu ne damay wax sëriñ bi ni ko ni nga may ñaanalee dee ko ko ni ñaanalee nee ndax taawu na liggéey bi lool te sellal ak ci pëstéef ak ku dëggu te xool ci lu dul sëriñ bi lu dul pëstéefu kese kese kese ak ak liggéeyal la sëñ Tuubaa nee na kon mel ni waxtu wu ne dama naan na taxawaayam na ci pàggute bi sëñ Tuubaa yi la bokk moom it nee na kon soxna si moom matuñu seere ci moom jëf ji mu jëfit da koo def ci turu bi moo tax ñu leeral ko nit ñi di ko xam waaye nee na li muy jëfa ko ëpp kon ñu koy sant ndax jëf jëf gi na lool ne ndax fukki million ak juróom-ñaar nag ak yeneen yi mu séddale ci dëkk bi nee na ndax carte yëpp jëfam mu dugg na fa kër kilifa gu ne jëfam ma dugg na fa nee te yemalewu ko ci biir Tuubaa it nee na man mii sama daara jee te Jannatul Firdawsi nee na fondation bi sasoon na fa dara di ko fa defar nee na te mi koy defal yeneen i kër yu bari nee na te man la waroon njëkkee sax nee na waaye maa ko bëggee bu doon noonu nee ndax lu mu jëf ci man nee na day mel ni maa ko jëf kon dañ koy santaat ci jëf ji bu baax di ko ñaanal ci barkeep Sëñ Tubaa màggal gi nga xam ne lu ci waay tàbbal Sëñ Tubaa dana ko nangu kon jëf ji ci fondation bi dugal yàlla na ko sëñ Tuubaa nangu te te barkeel ko ba fondation bi àgg foo xam ni amatul ab ab nee te xam na lu yéeneem ji ci loolu kon nii ngi leen di yóbbante ak cant ci moom bu baax di ko gërëm di ko ñaanal ci barkeep di sëñ Tuubaa sunu borom mu dëgëral ko mu kàttanal ko ndax man matuma seere ci moom sama cant ci moom itam nee na bu ma ci duggee nee na dina am nee na la làmmiñ lottu na ci ndax leen lu ma xalaat sama digg ak moom rek nee na ci ci génn jëf rek mënuma ko cee fay ndax maa ko gënal la boppam nee na loolu nag lu wax ju diis la loo xam ne nii xuta wax sax nee na ndax sa doom sax nga ni moom a gënal bopp yombul waaye man wër na ma ni soxna si moom maa ko gënal la jëmmam nee sama ndamit moo ko gënal la ndamam ni sama yëkkatiku moo ko gënal ak yëkkatikoom lu mbir rëy rëy rëy rëy bu sañoon dafay ne ca suuf nee te bàyyee màkk nee te te li may seere rek yàlla rek laa koy seereel nee na lu dëggoo dëggu la te ñun ñu fi teew ñëpp nee na loo xam ne xam nan loolu nee na xam ni ñun ku ci bëgg lu ko neex man dama naan ko discours bi seen bas def tey amatul lu benn la fi nee na kon nee na moom dañuy ñaan rek suñu digg ak moom yàlla sàmmal ñu ko Serigne Touba sàmmal ñu ko. nee na ba keroog ñu koy fekki nee na ñuy di feddaliwaat rek la ma sëriñ bi waxoon na ci moom ne ma yow sa digg ak moom pàggu téefu sëñ Tuubaa la sama ñaan na gu nangu la nee na kon moom mooy sama kilifa nee na ndax moom a féete màkk ci sëñ Tuubaa nee na waaye nag sëriñ bi def ma koo dénkaat nee na kon moom suma diggante nee na sëñ Tuubaa lañ ciy def fu seere ak di ko ñaanal démb bi may yeewi dayra seex si neen nee na wax naa leen ko ndax ñoom ñoo fi ne di tàmbalee bis bu njëkk ci safar ba démb ci tisbaar ñooy yendu ci kër gi bu nu xëy di wàccee alxuraan ak di topp toogan ñi nee na ba démb teraanga yooyu yëpp nag li tàmbalee ci ci ci bisu safar ba ba ba démb mboolem luñ fi jëfandikoo nee na ci soxna si la jóge nee kon loolu moo ëpp lii fuuf te loolu lépp positif la koy defee nee na nee na te ñu fi ne sax xamuñu ko nee na kon loolaa gën a tuuti ci jëf ji nee na yamat yamatu ci nee na bi ci guddi ay wëli yére la ma yónnee yoo xam ne ren ba déwén mën naa koo sol nente ak mu joti noonu la koy defee noonu la koy defalee sëriñ bi mu def ko muy lu dëggu ci moom nee na biig dama koo sant ba man sax dama caa mujj am di yëg-yëg ndax teraanga ja bari gum bari nee na kon ngeen santal ko ko bu baax nee na fépp fu ak cant di àgg daal ak nee na ak ngërëm nee na cant gi àgg na fa li ci des nag dañ koy dolli rek sotti ko ak ñaan mooy liggéeyam bii yàlla na àgg fu kawe jortam nee na te yàlla bu ci dara dugg yàlla na ko sëñ Tuubaa nangul boppam te taxawul ko boppam ñu jërë ngeen jëf. nañu tàllal mu ñaanal nu amiin Mbàkke yow yàlla na nga fi yàgg te wér Cheikh Mamadou yaa baax ca gore amiin amiin amiin na nga fi yàgg te wér muy enveloppe bu am solo mu toll ci euh, fukki million ak juróom-ñaari nag yi nga xam ne moo nekk suñu gannaaw loolu lépp nag daf ko jàppale comité d'organisation bi waaye euh, fondation bi li muy def ëpp na loolu sëñ Bass wax na ko sànq ne ba ñu commencé ba tey li mu ciy liggéey bari na mais yamuñu ci loolu dañ ko def ci gox yu bëree bëri yoo xam dañ ko def ci sutura dem jox leen waaye lii ne dafa fekk ne dafa mënta ñàkk rek comme ku ne ku ne fondation mu xaw a laaj tuuti média médiatisation moo tax ñu def lii waaye li nga xam ne fondation bi def na ko ci màggal te wane wuñ ko lii asaka ji la kon nag euh, tey lii moo tax ñu ne nañ taxaw wax suñu mbokk presse bi di leen daal fondation Soxna Baali Mountakha Mbacké tey jëf na lii ci màggal Touba 2022 teg ko ci loxo comité d'organisation bi man ak délégation bi mu àndal yëpp ñu ngi nii euh, wax nañ ko sànq jëru ñu leen limaat ndax euh, temps bi xat na sant nañ leen gërëm nañ leen baax a baax sababu xaybati ya an Allah